bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin saydina muhammad salallahu taala alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wazir balaay barki maam Cheikh Ibrahima Fall salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di uh, nuyu te di leen ziar fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci Touba Jannatul waa Baye Fall ga fii nga xamante ni tey fii la maam Cheikh Ibrahima Fall nekk di Serigne di Fall moom Serigne Modou Mbend Fall di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd ak wér la ñuy siyaaree ak a ñaanal sangam ba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké eh, mi toog jotaay Serigne Touba Khadim Rasoul sunu borom yàggal fi loolu tamit ànd xam ngeen ni jëm ci. bés bu bu bu bu mag bés bi nga xamante ni mooy bisu maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall ku bëri bis la waaye bis bi nga xamante ni moom lañ ko gërëmee di bés bi nga xamante ni eh, Serigne Bassirou Fall alquran di ñaan sunu borom dolli ngërëmam moom la maam ju tedd ja taw féexal ba bis bi jaar si loxoom ba tey ji àdduna gépp di ko màggal ak di ko fàttaliku muy bis bi. Serigne tubaa Khadim Rasoul gërëmee maam Cheikh Ibrahima Fall tombé woon ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm gi nga xamante ne moom lañ nekk. kon di ko waajal bu baax a baax fas yéene euh, visité waat taarix fàttalikuwaat xew-xew bu rëy boobee nga xamante ni sëñ Mamour ni mu koy waxee euh, léeg-léeg di wax naan euh, bañ ko nangulee keroog ca Mbacke Kajoor lañ nangul ñëpp waaye bañ ko nangul buñ ko nangul woon duñ nangul kenn ndokk boogo sëriñ bi nangulee. waaye nangul ko ba noppi nag gërëm ko ay gërëm yu baree baree bare miraaran waaye nag bii nga xamante ne moom la ñu jàpp di fukki fan ak juróom-ñaar si weeru gàmm di ko fàttaliku di ko delloo njukkal moom sunu maam Cheikh Ibrahima Fall kon fas yéene ko ànd ak Serigne Mamour Ndaw bàyyi Fall di ko ziar bu baax a baax waaye sunu Baye Moustapha Seck Baye Fall di ko ziar bu baax te di ko ñaanal sunu borom gën leen a dollil tawféex te yàggal ko fi lool te maa def wér sëñ Mamour salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Aline Badara Ndim aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñu ngi ñaanal sunu yaakaar cheikh mouhamadul muntaxa mu yàgg fi lool te ba lépp lu mu naala sëriñ mu yeggale ko ba sumb yeneen i naal eh, te nun mur yëpp nu ànd ko ak moom di ko ñaanal baax sëriñam di faal moodu mbenn mi fi wutu maam cheikh ibrahima fall sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér ba lépp maam cheikh ibrahima fall mu yeggale ko waaye di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim gi yëpp mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina sëñ Aline Badara ni nga ko waxee rek ñuy waajal bis bu tedd bis bu mag eh, tax tey jotaay bi ñu di ko fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall fii nga xam ne fii la ki ko fa nekkal di Serigne Amdi Fall Modou Mbend nekk fii nga xam ne lu ëpp ci liggéey yi ñëw jóge ci ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim di ko fekk si fii eh, waaye di santaat yàlla bu baax a baax itam sant tey sunu wéjur yi ñu ko àndal mooy sunu baay baay Moustapha Seck di ko jaajafal bu baax a baax a baax di sant bu baax mboolem njabootu eh, tàmbale ko ci Serigne Mbacke Fall Khary Diop mi nga ñi nga xam ne ñoo am taw feexi bis bi nekk ci seen loxo tàmbale ko ci Cheikh Bassirou Fall Quran mi nga xam ne yàgg na koo taxawu eh, ba tey jii mu bàyyi ko njabootam gi Serigne Ngunda moom Serigne Bassirou Fall Quran ànd ko woy juróom wax Serigne Cheikh Fall cokke moom Serigne Mbacke Fall Khary Diop waaye ànd ko mboolem njabootu eh, Serigne Bassirou Fall Quran gi yëpp ak mboolem njaboot gi yëpp fàttaliku bisu ngërëm loolu nga xam ne ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko gërëmoon maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima ku bëri ngërëm la waaye ngërëm li nga xam ne sëriñ bi gërëm nag ko ci njëkk te mooy Daaru Salaam eh, te mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm yabaloon ko ndar waaye ngërëm loolee nag ñu koy fàttaliku mu tombé woon na bisub talaata sunu baay Moustapha sekk dina ci dëkk incha allah yaatalal ñu ngërëm loolee naka la demee woon ak eh, ci jamono booba gannaaw bi mu ko gërëmee lan la ko sëriñ bi soppiwuloon ab liggéey ngir Cheikh Ibrahima wéyaloon nekkoon ca loolee tey jii nag sëriñ bi suuf alxuraan am taw feexi sunu borom di ko fàttaliku bis bi nag di cosaan di bis bu yàgg ci yoon wi mën nañu wax ne bokk na ci bis yi ñu njëkk di fàttaliku maam Cheikh Ibrahima Fall bis boo xamante ne bii bis la boo xam ne daat bi saa bu egsee xam ngeen ne ñu di ko fàttaliku daa ko defee fa teewaawoon waaye sëñ Bas nag amoon ndigal ci ay kilifaam. tàmbalee ko ci ki moom bis bi tam mooy maam Cheikh Ibrahima Fall moo na ko wax ci làmmuñu boppam de nee na Cheikh Ibrahima ko sant na ko na nga ko toxal Touba bis bi nag ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ko defee fii nga xam ne fii la maam Cheikh Ibrahima Fall dëkk fi la eh, waaye comme Baye Moustapha Seck ngi toog te am nañ yéene tey taataan lu baree baree baree bari ci taarix incha allah dañ koy daal di dalal rek asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Mamadou Ndaw Baye ci eh, kaddu yi am solo yi ak eh, nuyoo beeg ubbi bu am solo boobee ci bis bu màgg bi kon ni nga ko waxee di bisu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu ñu koy euh, fàttaliku sunu jàmbaar ja maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ci ngërëm lu rëy loolee euh, Serigne Touba Xaadim Rasoul gërëmoon ko te muy benn ci ay ngërëm yu jóge ci sangam ba Serigne Touba Xaadim Rasoul bi si jëmmam ja Serigne Bassirou Fall alquran ni nga ko waxee di ko taxaw ba sunu borom dogal lim dogal ci moom yàlla na sunu borom dolli ngërëmam. mu bàyyi fii ni nga ko waxee euh, kon euh, njaboot gu mat njaboot macha allah euh, si njiitalu Serigne Ngunda Fall moom Serigne Bassirou Fall alquran yàlla na ko suñu borom yàggal lool te mu ànd ak wér ànd ak mboolem njaboot gi ñu koy taxaw taxawaay bu am solo jël lépp nag teg ko ci loxol Serigne Bassirou Fall cokke mi nga xamante ni moo jiite organisation bi di ko ziar bu baax a baax di taxawu kon bis bi nekk sunu kanam Baye Moussa Seck di la ziar bu baax a baax. Eh, te di la masawu coono eh, kon dila dalal di la wax salaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh asubillahi insaan rajim bisimillahi rahman rahim wa man biya daxalaf fi amrin fala yakuna xaiban wala mustafila nasartani fa innaka nasir maata ay bi innaka albasir suma salaat alal muxtaari min mudarin xayril bariyati min baaki mubtasimi lil mustafa kulliyati kulla sana mathan salatan wa hababan hasana ya rabana habli bi haqqil kawsari yumnal hayati wa ujuri kasiri amin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Seyna Alioune sëñ Modou Mamoun wax ngeen dëgg ñoo ngi siyaara cheikh Mamadou Mountakha xalifa généralu murid Seydi Sadat di siyaar sëñ Amdi Fall mu cheikh Mamadou Fall Mbenda muy borom kër gi nu nekk ak njabootu Cheikh a Fall di siyaar diñ ci ñaanal Serigne Bassirou Fall alquran mais yàlla dencal denc bu mag bi maamam Cheikh Ibrahima Fall dencal ko ko sëñ Bassirou Fall alxuraan di ko dal ci bis bi dinaa ci ñëw waaye li ko ci dal mooy la borom Tuubaa waxan dani ax faaliya siran rasulallaahu nit téeméeri junni ay yonent ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni dañu fee jaar mu am benn sekkari mu ñëw mbóot saa dencal ko seen Tuubaa fee sa yonent bu ci nekk ànd ak saabaam waaye lii yàlla dence sëñ Tuubaa mu dencal ko ko fee ba mu ñëw nag mu jox ko ko mu ne yàlla dencal na mu mbóot moo xam ne dañu koo ñëwal ak fàlliya siran masuuna yàlla man denceel nañ ma mbóot mu ñëwal ma ñu ne ko ku la ko denc mu ne allahu yàlla ñu ne ko waaw noo ko mën a layeele lan moo taxal nag jox ko ñu jiitu mu ne xubban damaa bëgg rek soog cofeer rek xubban cofeel rek tax ma dencal ma ko loo cofeel nag bu duggee man na lu ne mooy xubban wala ilaha am kama ko dencal nag mooy buur benn xam ni moom la ak jaamoom de am njariñ ñàkk jaamoom de lor kooko ma dencal mbuut mu ñu ñëwal ma bala gaayu baax yi bi bi ko baax tàmbalee wàcceeg léegi li seen baax yee baax baax li ma denc jox ko ci kenn sëñ Bassirou Fall alxuraan looloo ko daal lii ngeen ma laaj nag la mu Modou Diop tàbbi daan wax te jii la leen koy wax mais mooy lan maa fekk mbojj mi te wuutiwuma njëriñ mi fu fépp dugub dugg xam naa ko maa fekk mbojj mi te wuutiwuma njëriñ mi fu fépp dugub dugg rek xam naa ko. kon de Baye Moussa leeral. ngaay la ne. mexe. booba Baye Cheikh Ngaay Cheikh njaay Ngaay ngi dund waaw ba loola amee ñuy waxtaan ay daanukat booba ñun ñii suñu ànd bi sëñ Adama ñang wakkaane xàqan lépp nag ak moom ku mat rendre hommage la ci bisu maam si Ibrahima Fall bii ànd na maa moom ak sëñ Bassirou Fall alxuraan at muñ ko mujjee defe tiyaawal sëñ Bassirou Fall alxuraan doo ko jot ci ndigalul Cheikh Mamadou Lamine Baara mu indi ko Touba mu ne ko Adama Niang dama bëgg subit ba jotee nga ñëw ma taxawal la sëñ Bassirou gépp ñu décoré la wutal lañ addee sëñ Adama Niang daal jël ak kolong naar gu si Abdou Khari daan koloo jox ko Adama Niang Adama Niang ni ko jërëjëf Fall lii nga ma defoon day na ma sët waaye bàyyi maa ceer a Fall mi taxal ma doon feeñal bis bi ci sama kanam te lu waaye wax di nga ko ñi ne Tiwaawan kër Muudu Géey mag la ci Seex Géey mi ci Tiwaawan Adama Ñang moo ne moo moo yëg moo jëkk yëkkati kaddu Adama Ñang mu sëñ ay dara mbake mu maam Cerno Birahim daamal Daaru Muxti mu baax ma ni man de Cheikh Faal ñu ne haa mu ne lu ne dégg naa ko waaye bis bi ñu gërëma Cheikh Faal di musuguma koo dégg te it wóor na ma ni ci lañu la ñu ko gërëm te it gërëme wuñu ko ci ak mbooy kon am na fu ñu ko gërëme waaye mosuma koo dégg fenn loolu ngaay la xewe li cosaan la la mool li suñ amoon kan bàll ay sa naan loo bëgg a xam te laajuloo cosaanam boo sàgganee ñu wala ab sofaanam lii nag man maa ko bàkkuwuma waaye damay sant ku ci yor ku fi yor micro di ko fi wax ñëpp ba génnuma kenn nag tey wuyoo faal tey wuyoo faal bi ci sëñ Bassirou Fall alxuraan jotee ci nga doog tàmbalee xam dara ndax bis bi dana ko doxal ñaari at ba ca ñetteelu at ba sëñ Bassirou Fall alxuraan doog cee jot. sëñ Adama ñang wakkaana àqan tàmbalee laaj mag ñi dem gébb ñu ne xamuñu ko ñëw ci mag ñi Touba Fall ñu ne xamuñu ko ñëw na kees noo ànd. ci Baye Modou Mbaye Issa mu ne xamu ko mu dem Tunguur ci dàng seen ci Baye Moon Njaay dàng keroog ba muy ñëw alkaati Bamba la kase alkaati Bamba sol ab tëni mi jënd saakub ceeb aadama ñëw wakkaane akkan mii jënd saakub ceeb bu san kilo boobu moo ko burum xuulu wertoon boole warga ak suukar ak café indiwaale ngàbb ab junnib xaalis ci ci loxoom ba mu ñëwee tummóor fekk baay moor njaay dàng mu nga ca mbaarum pénc ma ñu ñu daal di oto ba daal di kër baay moor njaay dàng aadama ñoom ni cëpp alkaati ba mu ni cëpp ak tini policier mañ mañ dañ ne moor njaay ndawul buur ñoonu sa ñu ngi lay jàpp si ndawal buur ñëw na sa kër ni nga diglu li ma wax bu baax na ko ñëpp dégg ndawal buur ñëw na sa kër bàyyi moon Njaay daal di di tëb ba mu tëbee di dow di ñëw sëñ Adama ñëw dow daje moom ni ni ko ndànk ndànk bàyyi moo ndànk mu mu ne ko gaawee ma doom gaawee ma gaawee ma gaawee ma Adama ña nga kaan ak ñenn yàlla yët ay yërmandim daal dajeeg bàyyi moon Njaay dàng ni ko fuux kayitu junni ni ko junni bii Cheikh Fall la ko jox bàyyi moon jaay danga yuuxu xaacu ni Cheikh Fall waxat na ma ko mu ne ko saako ceeb bi yaa ko moom warga yi ak kafe gi su saangi laaj ko nag ni ko nag dañ doon gëstu bis bi bi borom Tuuba gërëme maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi moon jaay danga ni ko xamal naa ko waaye faay na ma moo tax mag ñi dañoo gore te ragal yàlla. ragal yàlla waaye faay na maanaam fàtte naa ko. Alaaji Ibou Sakho daal wax ni fàtte naa ko gënu fen. dëgg la Alaaji Ibou Sakho mu baax ma. daal daal man fàtte naa ko gënu fen. mu ne xamoon naa ko waaye faay na ma. faay mooy fàtte naa ko. mu ne waaye ku leen ko mën a wax. juróom-ñaar dina ci amul yoon. fàtte naa weer wa. fàtte naa ñaata fan ci weer wa. waaye weer wu mën a doon juróom-ñaari fan ya lay doon wala fukki fan yaak juróom-ñaar wala ñaari fukki fan yaak juróom-ñaar ku leen ko mën a te muy wér faw juróom-ñaar am ca bàyyi moon njaay daang moom bii bi bi tegtal la jox aadama ñoo kaal àqam yaa ngi dégg loolu aadama ña wat fi mu a àqan dem Kowlax fekk fa Baye Mor Ndiaye tomb deel Baye Mor Ndiaye tomb deel ni ko maa ko xam maa ko xam ne ko may bés sëñ ma Samba Ndiaye wàqe di ko bés di ko bés mag ñi dañoo fonk magum taalibe ba sëñ ma Samba Ndiaye wàqe ni ma Moor Ndiaye ma ne ko faal mu ni ma lii nga may defal di ma bés maa koy defal Cheikh Ibra faal ba Cheikh faal ne ma Samba Ndiaye ma ne ko faal mooy nag xam nga bis bu ma sëñ Bamba gërëm ma ne ko bëgg naa koo xam ne faal mu ne ma fukki fan la ma gërëm ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu ci Daaru Salaam. ca Daaru Salaam ca Daaru Salaam. ni Masamba Ndiaye ma ne ko faal mu ni xeexee adoom daje bis boobu nga xam te ni moo topp ci altine te ku ñu ko def nga mer ne maa ko ni talaata mu ne waaw doom waaw loolu ba ba sëñ Masamba Ndiaye ne maa ko ni talaata mu ne waaw. muy bis boobu topp ci altine doom te ku ñu ko def nga mer nee man ko talaata mu ne waaw. bàyyi moon daal tomb del jox bis boobu suñ aadama yang wakkaan àqan bi suñ aadama yang di déetu woon ci suñu groupe bu daanukat bi boobu xasida rek la ñuy jàng te loolu su sewoon daaray làmp te ndakaaru indi ko guy footu may ga ba jóge fa dem dem dem caaroy fu ne def nañ fa daal lamp lu mu fukki at ak nangam tàmbale ci xilaafuk Sëriñ Assane Fall lu ko jiitu dan daan waxtaan ba am na bis ñu ni léegi nag kenn ku nekk te dan dañuy waxtaan di ba ba ba réer tëdd ñu ne ko na jàng téeméeri mawaahibu nga xam loo gaaw gaaw fajar jot téeméeri mooy téeméeri mooy am am kii euh, euh, sëñ woodu Mbacke Diagne daal di tàllal loxo te ku tàllal loxo ñëpp ay bàyyi ku wax keneen di daal di ne kenn ku ne na jàng jën suñu jën suñu si ndii di ñetti ñett loo gaaw gaaw asamaan set sëñ Adama ñëw kaan ak xan kuréel sëñ Adama Sarr mi may dégg ci la sëñ Dame Touré mi may dégg ci la dégg nga sëñ Ibrahima Booy ci la sëñ Maxeet Badiane ci la dégg nga ñu mbooloo mu bari la ñu wan sëñ Ibrahima Booy nekk si kar lool bi bi sëñ Adama amee xibaar bi nag ci bàyyi Moor Njaay tomb deel gàmmu gi gàmmu gi jub ñettam des lu néew ñu ne ginnaaw ginnaaw gàmm gi daa jub nañ ko bàyyi ba déwén ñu ne déedéet ginnaaw dañ doon gëstu ci maam Cheikh Ibrahima Fall te am nañu bis bi nanu ko def yaa ngi digg lay wax moo duggee man ko waxtaane ca amul ak jekk daal ni moom yurul lamp nduur ñu de ko kodde nduur la tudd booba di sufaru àll yu mbay paala ca Tiwaawan moom moo ngeen teewaat boppam tudd ko maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ne Lamp Ndour waaye boobu mu ngi tudd Codé Ndour Lamp Ndour boppam booba mi ngi liggéey ci Aliou Mbaye Paala moom am Paala mbay mu ni man de man man man man bu ngeen ñëwee Tiwaawan maa def ngan gi loolu ko jëlee ngaay indi ko Tiwaawan mu aw béy wu jigéen la jëkk jënd jënd ceeb ak diw ak café lépp sikkarkat ya daanu keroog bo boobee ñii ngi si kër fii ñii si kër fii ñii yor seen dolli xasida bis booba génn woon kër ko de Ndour ngi dégg dafa baax cosaan laa di indil ñu def ko kër Codé Ndour te at moomee te déwén sañu defaat ko kër Codé Ndour muy ñaareel bi yoon yëgalaguñu ko waa Paalin ko sant Fall taxawagu fa déwén sa Codé Codé Ndour faatu wàccub liggéey. mooy Lamp Ndour. mooy Lamp Ndour. Cheikh Gueye. taalib sëñ Bassirou Fall alxuraan ca la bokkan di ko baax sëñ Bass alxuraan di ko joxoon ngan. ñu ne ginnaaw nganu nganu sëñ Bass alxuraan gaa ngi ñëw léegi léegi nañ ko dëppale ak bisu maam Cheikh Ibrahima Fall bi. ñu yóbbu kër Cheikh Gueye. sëñ Bass sëñ Bass Fall alxuraan maanaam assisté ñetteelu at ba ak fal yi siral ma sunu laahu yàllaa ko ko dencal ay waajuram jaar te joxuñu ko ci kenn nun daal kat ñu ne ko sëñ Bass kon bis baa ngoog sa bisa ndax lii xobu xël la ëpp na gii ma ñu tef est mag ñi mu ni moom it nag dafa am kilifa at moom la suñ toog xilaafa kon nañ dem ba ca ki fi nekk Cheikh Ibra Fall ñu wax ko ñu jébbal ko bis bi en 1984 ñu jébbal ko suñ muudu Aminata Fall sëñ mu demit Fall ni ko Basiru Fall mun nga Fall mun ko bis bis baa ngoog yow la ko yàlla yeeyal sa bisu maama. jërëjëf Baye yow moom <laughs> ce que sëñ maanaam euh, euh, noonooy cosaanul bés bi bu 1984 sëñ Basirou Fall al Quran maanaam lu ma si jegee dafa yéeme lool maanaam topp kilifteef gis nga mag ñi nañ àndee woon wagar seen kilifa lool waaye gis nga njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi sëñ Basirou ba mu ñëwee ñu ni ko bis bi sa bésa dafa ñëw ba si kilifaam sëñ Modou Aminta li ma si jubloo wax daal mooy laataa ñoo ñëw si njàngat foofee sax moom mi ñuy tudd boobu ba léegi sëñ Bassirou Fall alquran am taw feexu 1984 ba nii di taxawal bis bu mel nii bisu maam Cheikh Ibrahima Fall kan mooy sëñ Bassirou Fall alquran eh, jërëjëf sëñ eh, sëñ Aline Badara jërëjëf Baye Moustapha te xam naa ne moom fi mu nekkoon doyoon na sëkk sax ci nga mën a toog di ko teewlu ndax cosaanul bis bi dafa dafa daf ñu daf ñu ñor ngir ñu ñu koy fàttaliwaat saa su nekk ñu xam ne bis bi bisu ngërëm la waaye bis bu nangu la ndax yaakaar naa at mi wax jiitu na 1984 ndax 1984 gannaaw si bi bi ci Bas di tàbbi si xam nga ne loolu kon dafay mel ne bis bi fan am na def na ay ati at boobaak léegi yaakaar naa ne ñu ci judd woon ñaari at ma dund na ñaari at ñetteel ba mu mu egsi ci loxoom kon day wane ne kon euh, ñoom naka jekk ñoom ñii Cheikh Ibrahima lañ mas di wër <laughs> ndax booba gis ngeen tudd seen bopp mooy magi daanukat yi te man xam nga ne ñoom laa faral daanukat yi laa faral <laughs> waaw <laughs> bàyyi adama ña ma kaan aqat yàlla na yàlla dolli ngërëmam ba ma koy mujj gis poroxaan laa ko fekk ci këram di ko ziar ànd ak soxna euh, ndeysaan euh, kenn ci njabootuk defe naa bàyyi sa Baabu yaa ndey Baabu mu koy ziar waaye sëñ Bas day jënd jëmm joo xam ne ku mat di waxtaan la sëñ Aline Badara doy na sëkk ci jamono ji ndaw ñii ñii ñii toll fi jamono toll suñ leen jàngaloon sëñ bas alxuraan rek dañuy xam fi ñuy gën a mën a teg seen tànk te defe naa loolu Baye Moussa dina ci gën a yaatal bu baax sëñ bas bokk na ci tudd nga ko léegi mooy ku nangu kilifa moo ma waxoon ci làmmiñam moo ma ne damaa dégg see mag ngi ne Cheikh Ibra Fall nee na sama yoon yi parcours lañ bu jiitu morom ci topp ci moo tax ku fi mas a nekkal Cheikh Ibrahima ànd ak yow moo ma ko nettali ci làmmiñu boppam euh, a jekk diggante mu sëñ Modou Minta dafa yàgg ndax sëñ sëñ Abdou euh, sëñ Cheikh Mbaye Yaaram moo ma ne xamoon nga ne sëñ Modou Minta ak sëñ Bas teel nañu ma tari alxuraan. mu ne ko nga ne mu ma segere ci kese Ibrahima Mbaye. Mhm. sëñ Cheikh Mbaye Yaara moo moom ko wax. kon loolu yàgg na de naka jekk dañu da koo mas a topp ci daara ji. Mhm. ba ni mu doonee Cheikh Ibra Fall. du du bàyyiwut mu doon moom de bi ñuy ne ji laa di jàng kese Ibrahima Mbaye booba lañ àndoon. ba yàlla dogal mu dem ba gisatut ay waajuram sëñ te rek buñ la doon nettali sëñ Bas Sëñ Ali Fall Mbor sëñ Bas Sëñ Abdou Sakkour mhm. egsi ba ci sëñ Modou Minta kon ku fi mas a nekkal Cheikh Ibra nga masa doon dara ci Cheikh Ibra ànd naa yow warmal la respecté la yàlla dogal na nag mu bokk fu baax ci sëñ Mbacke Fall Xëri Diop Baye Moussa tudd na ko wax na dana ci dikk sëñ Mbacke waaw. wama sayidna ilaa bi ma alim na wama ku na li xëy bi xaafisina xilaafuk sëriñ Faal lu sëñ bés alxuraan mas a am jox na ko ko ba mu ñëw ci Abdou Sakkour mu topp xilaafuk sëriñ <laughs> kon nag a jëkk ba mu gisatut baayam mboolem ko fi mas a toog di doomi Cheikh Ibra waaye nga am cër ci maam Cheikh Ibra Fall ànd moo tax noonu la xame woon mag ñi euh, sëñ Mbàkke Xari Jóob nag moo ko meññ sëñ waaw sëñ Ngundaay magam sëñ Basa ci topp sëñ Mbàkke Fall moomu doomi soxna Xari Jóoba moom maam Asan Jóob ca mbànd foofa la Cheikh mu mujjee dem am jëlee fa way juróom wu jigéen ndax mag ñi wax nañ ne ku ñuy wax sëñ Ahmadou Diop téere nettali na ma mooy xalifam Mbànd Diop eh, nee na Mamoud Diagne Diop ko njëkk jox soxna Awa Jaxate Diop. Mamoud waaw Cheikh Ibra dëkkoo ko am ca sëñ Bachirou Fall mu gane jamono 1895 mu delluwaat fa maam Mamoud Diagne Diop jëlaat maam Sayer Diop maam maam Fatou Diop Sayer doy maam Sayer Diop jox ko Cheikh Ibra dëkkoo ko taawloo ci sëñ Mortala teg ci sëñ Aliou Fall Mbor. am na amoon na ñaar ñu góor dañoo teel a dem muy sëñ Baara Fall ak sëñ Omar Fall waaye teg na ci jigéen soxna Aminta Fall moom dund na fi lu yàgg mu delluwaat fa ñu ne ko Assane da bàyyi na fi ñaari doom yu jigéen ka wax soxna Xari jóob lañ ko jox mu dëkkoo ko taawloo ca Assane Xari Diop Baye Moussa dina ci dikk defe naa ne euh, ca njaareem la demee woon <laughs> teg ca mbakki Xari jóob mooy bàyyi sëñ Bas teg ca bu Fall Xari Diop yàlla dogal nag sëñ Mbàkke xari Jóob moom moo meññi sëñ Ngunda ak sëñ Bas alxuraan. macha allah sëñ Bas nag sëñ Basiru Mbàkke la ko bàyyam tuddee. mi ngi gane jamono 1930 gannaaw Cheikh Ibra gannaaw bi Cheikh Ibra demee rek am na sax ñenn ñoo xam ci njabootu Cheikh Ibra du soree ak ñoom mën nañ cee tudd ku mel ne sëñ Amdi Xadi Fall mën nañ cee tudd ku mel ne sëñ Abdourahim Fall ñu ci bëree bëri. date boobu la gane jamono waaye bàyyam sëñ Basiru la ko tuddee. ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale yëpp nag ci njàngum alxuraan mas naa nettali wax ne bindal na sëñ Basiru kaamil boo xam ne ci loxol boppam kër ba mu ko ko indilee fas ko jox lisil xadaa ila tudd fas wa hmm. waaw waaw mu mu suñ borom dogal mu doon koo xam ne ci ndawam lépp fépp fu doomi soxna war a jaar jaarale nañ ko fa waaye bi yàlla dogalee nag mu nga xam ne dem na nag ba jóge ci daara ji nag nga xam ne tarbiya na def na lépp nag mu ànd ak nag ay waajuram nag ànd ak ay magam waaye muy ku yàgg bëgg lu baax te di ko dund di ko xeeñ noonu ko yóbbu tiwaawoon ba yàlla dogal bis bi tegu ci loxoom mboolem fukk ku baax ma sa nekk sëñ bas dox na tànkam fekk la ko jaxasoog mboolem doomi sëñ tubaay jaxasoog mboolem magi sëñ tubaay ba ci ñi fi mujj man daanaa ngàbb loxo ci bay mbéykan xan bi sax yoor yoor di ko yóbbu sëñ bas alxuraan bu ñu demee ñoom ne dañuy tëju ma toog di leen xaar di ma wax ni maa ko dund ak ñoom de waaye respecte yooyu nga xam ne respect mag ñi respecté woon nañ ko dañ koo xamoon ci lu jiitu bi fi di nekk gannaaw Cheikh Ibra naka jekk ci lii la mas di dund ci lii la mas di wagu te it du ki ñi may addiya waaw da daan fàkku sëñ mu deminta daana mas naa wax sëñ Saliou ne ko su ma doon wo ah, bopp saxaar Bassirou Fall mooy wogo yu moo may jiñ <laughs> lu mas a am jox na ko Cheikh Ibra Fall ba si bis bi saa su noppi woon moom laa lay wax bis bi gis la bis bi waxuma la bu noppee waaye dama ne bis bi addiyaa ko jiitu ba pare bis bi gis nga maanaam bernde yem cee def ci fajar gi ñu ko mu ko daan tudde ay ndékki li may wax ni ñi miin bis bi xam nañ ko mhm. lu ko lu mu gën a fonk ci loolu amul gannaaw kaamilu alxuraan yi mu ciy jàng te muy woy ba léegi tàmbali nañ nag kaamil yi ci daara yi sëñ moom gis mboolem fajar bu ñuy julli fajar bu ndékki pare ñoo la mboolem ku ku ci sëñ Tuubaa mboolem ku sëñ bi gërëmoon sa maam da nga jot sa ndab mbo ba ci jumaa yi ba ci eh. barab maam Cheikh Ibrahima sëñ Bass du Badara parce que bis bi moom loolu la mooy jàng alxuraan jàng xasida tudd yàlla bernde mu def ko àddiyee maam Cheikh Ibrahima Fall te naka jekk ku daa ku kuy kuy fàttaliku fu mas a toll xam nga ne bisub talaata talaata kenn ba sëñ bas dalee màggal kenn màggalu ko déggee ñuy tudd talaata di tudd Cheikh Ibrahima moo ma ko wax de ndax xam ne Cheikh Ibrahima daa sasoo sëñ ba si bàyyi mu sawaa na ko léegi nee na talaata la lañ gërëme maam Cheikh Ibrahima Fall siiw na ci la fi saam Cheikh bàyyi ko kon talaata ku talaata bis bu am cër la ci maam Cheikh Ibra Fall Bayu Muritina te dégg naa ci sëñ euh, Mbaye kii euh, sëñ Muntaxa Gay Fulku mu na ma soo demee ci sëñ Bay Ngiraan dana la woon mbind ma wala kenn ci mag ñi sëriñ bi mas naa woolu Cheikh Ibra ne ko ñaari bis yi dañoo ñëw di ma jàmbat seen bopp ne dañ leen a gaafal ba duñ leen boole ci dara muy gaaw ak talaata na ko mën na jël naa gaaw waaye rafaatan na la talaata wax nañ ne bis boobee sax Cheikh Ibra def na ci ëblal ngir barkeloo ca barkeloo ko ci bis ba kon talaata bisub Cheikh Ibra talaata jooju nag sëñ Bass naka jekk dafa yàgg di ko dundal ko màggal mm-hmm. talaata bu jot mu rey ab gàtt togg ay añ togg ay laax yëpp yóbbu ci barabu Sëñ Cheikh Rafal di jàng alxuraan te di ko jàngale mm-hmm. di bind kaamil di ko bind bindulu bañ koy dàkkantalee Serigne Bassirou Fall alxuraan la ci am njaboot gaa ngi fi mm-hmm. waaw gën nag tëraani dama ah. nañ ci Baye Moussa <laughs> waaye nag xool Bassirou Fall alxuraan damay dellu ca أخفى لي سر المسر سر المسر الله حبا ولا حبا ولا إله lu ko yàlla beral la ni mu ko dencal bisu maam si Ibrahima Fall bii ba mu ñëw mu teg ko ci loxoom jaar ci xalifa maam si Ibrahima Fall mu si Modou Fallu Fall noonu la ko yàlla berale baat bii nag bi mu bi ñu ko déggagul xam looy day am cosaan bi ñu ko déggagul ci suñ bëri faal alxuraan déggagoo ko ci kenn léegi daa mel ni loolu ngi bëgg daj kër yu ne wut nañu am nangam alxuraan ba mu juddoo ci suñ bés alxuraan ba noppi nag. ay magam la nekkalante ñëpp a mën alxuraan. ay waajuram itam ñu bari mën nañu alxuraan waaye baatu sëriñ Basiiru Faal alxuraan bi àdduna sosoo ba tey. ku dul ku dul benn naar bu ñuul si moo di fal alkoraan moo ko suñ tubaab defoon ca xumaar di moo ko moo kër Cheikh Ibrahima Fall kon cërub alkoraan yàlla ko ko jagle mu jaar ci maama muy sëriñ Bassirou Fall alkoraan ba noppi nag alkoraanam ji da koo jënd da koo xeex ndax jamono bi muy jàng alxuraan di ko di tërbiyewu alxuraan lekk amul naan amul dara amul maanaam boo ko diggee néew na ba jafe daa jox loo xam ni sëñ si xalifa mii moo ma ko nga xam ni booba xiif am na sëñ ba si far alxuraan takk ko laxasu dara ñurukul alxuraan jii daa moom na dugg ci dënnam bii rek <laughs> ne am na bi si Ibrahima ba yónni ko muy dem topp ci koo xam ne ak fajar daayul am ñoom bi di ko xolli mu wóor ni nii nii sëñ ba doxale mu wóor ni réerul añut te ndikkiwul it nag di xolli ñam bi ba waa di xolli ñam bi di sànni xolli bi saa bu xollee sànni sëñ ba xor for xollit ya faxas deru xong wa yiy yiy deroo weex wa yooyu teel waa ji ndàkk ba ñambi ba jeex sëñ Bass dem doxi yonent bu ñëw ba mu ñëwee li mu li li mu jëkk a bànneexoo li mu jëkk a wax gaa ñi mu fa nekkal daan ni xoomam yenn yoon de waaye bii moom neex na moom bii moom neex na. ndax xob yi ndax xooliti ñambi yamu doon fa di yey. te te te te coono boobu ak mitit boobu moo ko tërbee ba ba am alxuraan ñu defal ko alxuraan ci dënnam jël secret alxuraan jox ko. ñuy sëñ Bassirou Fall alxuraan. Mm-hmm. Mm-hmm. bisu maamam bii itam. Mm-hmm. ba mu ca jotee. noonu rek la ko la ko tëri ni man Basiirou Fall yàgg na ko wax ñëpp min nañ ko ci moom man Basiirou Fall day duma suuxat ab car uh-huh. dartab garab gi rek laay suuxat te mooy Cheikh Fall uh-huh. lu ma am jox maam si Ibrahima Fall Babul Mouridina waajuram war nag noona kër maam si Fall yëpp fu nekk am nañu fa noonu la doxalee de kër maam Cheikh Fall yi kër kër kër gu ne ah am nañu ngërëm ba ci suñu kër gee ngërëm loo xam te sëñ suñ bakk xër yóob dàmbi ni kër maam Cheikh Fall yi day mel ni li xew mënee su ko wax. kon ko bëri ngërëm la. dafa bëri ngërëm. ba noppi am ngërëmi kër Cheikh Fall yi. yi tasaaroo. fu ne mu jël fa nga ndiwat këram. gërëm loolu sax laa bëgg si Baye Moustapha ñu dugg. waaw. loolee. waaw. Serigne Bassirou Fall ba nga xamante ni ku baax ki gërëm na saamaam si Ibrahima Fall. mbirum lu jëkk loolee. lu jëkk la. Hmm. mooy 1888 di Amawa Sassine. kon gërëm na ko ay yoon yoon. ay yoon. maanaam ngërëm lu jëkk la mu la mu bàyyi koo Daaru waaye fekk am na yaari ngërëm yu ko jiitu woon te demut. xanaa ni mu ko toppee bu mu gërëm ko de loolu si taarix. mosuñoo gis ku ni toppee. nit ci ngërëm. déedéet. waaye borom Tuubaa la moo nu feeñalal ñaar. ngërëm. ak xidma xidma waaw ndax téere yëpp téere shariat mu taxara yi infaax lañ daan wax dundale ngir yàlla infaax xidma nag suñ tubaab ko indi ci téere yi téere boo dem fekk ci xidma bu suñ tubaab yombut infaax nga gis ba ci alxuraan infaax la wax yun la wax waaw infaax la wax mbir mi tam borom tubaab moo riddan wa rahmatan min allahi baddi xayra min adunia wa ma fiha jami mu gën maam si Ibrahima Fall amawu sësin bis bi bis bii sëñ Basiru Fall alxuraan di màggal te yàlla jagleel ko ko waaw ca jëm bis boobee nag ak moomee Cheikh Modou Moustapha Mbacké alayhi salaatu wasalaam radiyallahu taala anhu moo jëkk a gane jamono ci Daaru Salaam ca tam xarit wa teg ci juróom benn weer mooy rajab sëñ Fallu gane jamono ca rajab yaa ngi dégg ja mu gane jamono aw baraxlu topp ca aw koo topp ca aw koy topp ca rakk ji gàmm topp ca rakkaat ji gàmm rakkaat ji gàmm aw digg ah. hmm? tabaski tabaski waaw hmm. maanaam mu mu mu mu mu gane jamono si rajab gi waaw gannaaw rajab gi ndeyu koor maamu koor maamu koor waaw maam ndeyu koor gi baraxlu waaw nga wax waaw koor waaw aw kori aw digg aw tabaski waaw ñu ñëwaat ca tam xarit ga waaw ñëw safar. waaw digg ga ba ca gàmm ba ca gàmm ga. mu yii ko. juróom-ñetti weer mu juróom-ñetti weer. mu sënc Touba. gannaaw feeñu Cheikh Moudou Fadel gannaaw mhm. nga xam te ni loolu ñoo tegaloo feeñ si Moudou Sa Mbacke feeñ si Moudou Fadel sënc Touba ngërëmu maam si Ibra Fall lii ba Bassirou Fall alxuraan di màgg ba àddina sépp jot ci. Eh. ñoo tegaloo ñoo tegaloo. Eh. boobu gërëmugul kenn. ba mu ko gërëmee nag mu ñëw mu yoonu maam ci Ibrahima Fall wu jëkk wa mu dem Ndar ci la defi lu rëy borom Tuubaa woowaat ko sampalaat leen nag ñeenti daara moom daara yi ngay dégg sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ca la sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ca la sëñ Masamba Diop Saam ca ak maam si Ibrahima Fall nee fu daara maam si Fall ji neen fu daara maam si fii ko si Basiru Fall alxuraan di defe sow bi fii fii fii fii fii. <laughs> yow daal la est-ce que est-ce daa juum juumul fii la fii la jëlee waat ñaareeli ngërëmam. wallaay ñoom làmbatuwuñ. <laughs> ba nga xamante ni. Cheikh Mamadou Lamine Bara wëjju Cheikh Sidi Mokhtar mi fi bàyyi ko yéen ko yàlla fayal. Mhm. feeñ na jamono ñii ni 1890 ñii ni 1891 ba Cheikh Mamadou Lamine feeñee jamono la ne yéen ñeenti ñii. saa jëmm jii indiwaay na seen ñeenti ngërëm mu si Masamba Diop Saam ak sëñ Dame Abdourahmane Lo ak ak ak sëñ. Cheikh Ibrahima ak sëñ Cheikh Ibrahima Sarr xanaa kon mooy ñaareelu ñaareelu. mooy ñaareelu ngërëmu maam si Ibrahima Fall. gannaaw Daaru Salaam di di ginnaaw Daaru Salaam di premier ngërëmu gaañoo yetu ñoom la jëkk gërëm ginnaaw Cheikh Ibrahima. yóbbu ko Daaru Salaam nag ndax mel at la defoon ndar daal di koy yóbbu Daaru Salaam ne ko yaa Cheikh Anta bokku leen kër gi maam Cheikh ant ak maam Cheikh Ibrahima Fall nekk ci kër ga moom la mag ñu daan wax naan diggante kër Cheikh Ibrahima Fall ak kër maam Cheikh Anta aw sàkket sàkketu mbañ gàcce doxu fa ñoo bokkul ëtt ba ca la dajale ñeenti soxnaam yii moom maam si Ibrahima Fall fekk maam Faati Fall wadd mu nga ndar ñëwut déedéet fii maam soxna Assu Sylla moo fi nekkan ak maam Awa Jaxate Jóob ak maam Faat Jóob Sayer ñoo fi nekkan fii ci Daaru Salaam ñu def ci ci ci ñaari at ginnaaw 1891 dama ko yëlee 1893 suñ Moudou Moustapha Fall gane jamono ci Darou Salaam gii. 93 waaw 1893. ba mu ganee jamono. te loolu maa ngi ci waxtaan ak sëñ Cheikh Fall Mbor maa ngi ko ci nuyu di ko siyaara. Salam Cheikh Fall xëy ni ni wax Salam Cheikh Fall ni ko Cheikh mun ko mun ko Mbàkke mun ko dama bëgg nga génn kër gi dellu Ndar. te bàyyi Cheikh Anta kër gi. suñ tubaab mm, ko waxoon na ko ñëpp dégg. Ibrahima Fall dama bëgg nga ñëw dellu ndar te bàyyi Cheikh Anta ak kër gi. mu ñaareel mu ñaareelu demam ndar mu ñaareel demam ndar ni ko ni ko te bu dara génn. Hmm. te bu dara génn mu am benn mbattu mel ni kuddu wuus ñu la wax kalamba ci lañu ñu leen tibbaate cere ak laax mbatte boobee ma Fatou Diouf Sayer moo ko moomal. waaye ba mu génn génnaale mbàtt la daray maam Cheikh Fall génnul ba mu génnaale mbatt maa jootaan suñ Cheikh Fall bu woon mii saa maam Cheikh Fall dafa nangu mbàtt la sànniwaat ko ci biir kër ga ah ni ko Fall jot sa yar ko baax nee na bu dara génn. est-ce que ca la ndar. ànd ak ñoom ba mu demee ndar nag 1893 ca la jëf-jëf ju rëy ja ja tax tubaab yi génne ko ndar. gi nag teraanga moo tax ab sëriñ day mooy politique baaxul ci moom sëñ Bass Fall sama Ceerno Fall bu mosaa di doxantu ca Ndar ñaari xeeti doxantu win la am su fekkente ni doxantu diine su jiitoo seex yi dañ cee topp ñëpp marqué ba topp ci su fekkente ni dafa jékki ba tëkkusaan di tàllal ay tànkam di doxantu ni muy def mooy ndaama yee ciy topp ak moo niiw niiw daraja te gàtt ki gën a ndaama yee ci topp dañu ko def doxantu kolon kolon xam nga kolon bokkul ak raa kolon nii lay tëdd ni sama baram yi tëdd rek kolon yi tëdd raa nag nii lay def kolon hmm. nag laan doxantoo ndaama yi jiitu mu taxaw fee ba bopp ndaama yi fekk mu daal di jël ñi topp doon digg bi nit xaw a njool ñu topp da ñu jël njool yi ñu féete ginnaaw loo bari bari dara ji dem njool da ngay féete ndax ndax soo bu soo tolloo fee boo gisee maam si faal gis ndaama yi di nga gis ñu diggu dóomu doo gis njoolee ci kaw kenn du kenn du làq kenn ci ndar ci ndar doxantu boobu nag benn tubaab ci sindooni ak loodo benn tubaab gis saa maam si Ibrahima Fall loolu ni mu rafete nga xam ne raa bi gépp nga ngi mën ci benn balcon ni jàkk Saloum Cheikh Fall mu xool ko sëgg siggi mu ne ko jàkk moo tax ñuy bañ nga ni jàkk kilifa mhm. ba muy ay yoon Saloum Cheikh Fall xaaju gëdd ko ni ko tubaab mhm. ndeke ba mu miir ni ci suuf daal ñu jël ko yóbbu réanimation mag dee gouverneur général ni ginnaaw Cheikh Ibra Fall mii tubaab yi dañu koo ñime wut ba ku ma ci nga daanu nañ ko génne ñu ne ñu ne moom de ku ku ragal yàlla la ku noo waree fi buur la loo ko sant dina ko def lu lu ko sëñ bi tere kon nag tooñul kenn nu ñu koy génnee ñu ne xanaa moom ab liggéey kët la ndax booba dongo yi la ñuy def sëñ bas nga di ko dégg looloo aman dañ daan yenowaan booba wereg bii jóge Jolof ak daakaande wereg bii jógee bi bi bi bi bii jógee waalo moom lañu daan jël dongo yi di ko yenu dongo yi maam si faar yi di ko sa ci bato bi tubaab bi di ko yóbbu France ci lañu ñu daan liggéey daakaande ci la ñu daan liggéey gomm daakaane wér ak jooju léegi nag murit yi nag ñu maam Cheikh Fall yi maam Cheikh Fall boobu biilugul tool ndax ndar xat na ci daakaane wér boobu lañ daan yenowaan ñenn ñi dem dem ci àll waala bi di sàmm ak gënjool moo tax ñu daan jur ab sër bi akum nama dal am nama dal mooy ab yenowaan kat loolu mooy cosaan loolu ko waral ñu ne ko kon nag sa mbooloo bari na te nangu nañoo liggéey te ndar xat na dama dama bëgg am na àll ba ñuy wax jaara mooy tasineer tasineer ëpp dëkk waaye waaye àll ba suuf sa moo tudd jaara nen àllub jaara dama la ko bëgg a jox nga liggéey fi si sëriñ bi bàyyi moo dama isaa lii moomu ko max nee na ma bàyyi moo dama isaa mu Cees te waroon naa ceeg ñu bari maamu bi fi sama wuy jur jógee bàyyi moo dama isaa moo sama yaay sama yaay muuru ko sama baaxe moom ah. lool hmm. Baye Modou Mbaye Issa nee na Serap Faala kon nga xam ni keroog ba ñu ko nee nañ dox mag la nag du bëre de nañ nga dox àll jaara bis boobee maam Serap Faal dafa tàng dana am na salal bi wax na dëgg de kuy liggéey doomu jaara di boo ko joxee àll jaara xol ba sedd kuy liggéey doomu jaara boo ko joxee àll jaara xol ba sedd ñu jox ko te tasineer Gandiol 1894 mu senc ko te déwénte 1895 sëñ Bassirou Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall mosoon na awa jaxati jóob gane fa jamono sëñ Moustapha Fall ma ko ñaari at. sëñ Bassirou awa jaxate. waaw sëñ Bassirou awa jaxate. ñett ak ca weer yu néew. sëñ Momar Talla Fall gane fa jamono. ay weer lañu magante. ay weer lañu magante sëñ Moustapha Fall ma gën ñaari at. ca déwén ca di 1896 Serigne Assane Fall gane fa jamono ñu mage ko am at yaa dégg loolu yeneen doom Cheikh ba dañoo làqu hmm. mille huit cent mii nga xam ni doomam ju baax ji yàlla jege lii gane fa jamono te tasineer te tasineer 1904. sëñ Aliou Fall Mbowar moo dox ci diggante ba 1898. 1898 moo ko li may dégg léegi nag bokkul ak li xew. sëñ Momar Talla Fall. mi sëñ Aliou Fall Mbowar topp. ren déwén la magi sëñ Assane Fall. sëriñ Momar Talla Fall magi sëñ Aliou ñetti at. sëñ Assane Fall ma gis sëñ Aliou ñaari at 1904 Serigne Mbacke Fall gane jamono tasi neer ñu dox fa ab diir Cheikh Modou Fall benn gane jamono tasi neer 1904 moom sëñ Mbacke ñu bokkum at sëñ Mbacke mag ko kon ñii di ay di di ay ndar-ndar. kon daal lu ëpp ci njabootam lañu. tasineer man kay ñaar laa la ci mën a fi nekk nii ñoo xamante ni. seeni njaboot a ngi yëngu yëngu ci bàmba ji te ganewuñ fi ganewuñ jamono mu si Abdou Sakkoor ak suñ Gunda Faal sëñ Abdou moo gane jamono kees 1908 9 10 11 sëñ Saali Faal gane fa jamono ca kees waaw. wóoy ñi de ñëpp ay Saint-Louisien la ko may loolu muy ngërëm muy ngërëmul yàlla mboolem tiir yi ngërëm yi nag ñu dajale ko def ko ci benn bis njabaru Cheikh Fall gépp di ko màggal sëñ Bassirou Fall alxuraan yaatal ni ñu yaatale woon lislaam kenn ku ne di nga jot sa ci bis ci bisu maam si Ibrahima Fall bii daw nu mu ñu tudd ci ñu tudd suñu Mbàkke Faal soo nee nu mu ni bisu Cheikh Ibra njabootam gi noonu lañ ko doxee ba léegi suñ mun da doomam ji baax ji noonu la ko taxawee sëñ Cheikh Cokke mu baax mii dem na noo nekk États-Unis maa ngi moom waaye bis bi ñor na ko xom saa yi wax bisu Cheikh Faal bi rek umpul kenn kon Faal yow tam ñoo lay ñaanal taxawaay bi yow sëñ Basiru Faal sëñ Bas Cokke taxawaay bi yàlla yàgg sa wujuru wam wi la defoon jëwriñ hmm. umpule wu waaye doomam jii la jox def jëwriñ itam bàyyi ci jëwriñ nga te dundal ko moom umpaliwu maa maa ko seeri fi ay yoon ndax te cosaan la laa tàmbalee wax ba nëgë ni di gis ni ma koy doxee ba yàlla dogal nag muy dem ba daje état te bis bi doo ko ñor lu mu yëngoon bis bi tax mu mu mu yëngu sëñ bi noo ñaan fan yu gudd ak wér di ko ñaan sëñ Gunda Fall bu baax a baax kon bis baa ngoog waaw ba sëñ Maodo am na lu mu la bëgg laaj bala ngaa wàccee kàddu bi euh, maanaam euh, lan la Cheikh Ibrahima mu jël liggéeyal sëriñ bi ci Daaru Salaam ba mu gërëm ko mm-hmm. lu mu ko mujjee liggéeyal ba mu gërëm ko ci ngërëm lii ñuy fàttaliku gannaaw bi mu ko gërëmee yabal ko ndar itam ba mu demee ndar ndax la mu ko doon liggéeyal ci Daaru Salaam loolu la continué woon di ko liggéey wala ndar Cheikh Ibrahima sëñ bi da koo soppil aw liggéeyal laaj nga lu mat a laaj de. li mu mujj liggéey sëñ Touba. liggéeyale wu ko ko Daaru Salaam. la ko sencal moo gor Touba. dégg naa kilifa gu mag. waaye nag daa bokk ci ci kilifteef du tur. waaye daa jaawale. wax na dëgg nag waaye daa jaawale. maam ci Ibrahima Fall moo gor Touba. booba donga tarbiya bëriwut ndax ñeenteelu atu Daaru Salaam képp ci la gor Touba ñeenteelu atu Daaru Salaam waaw Daaru Salaam la ko sanc ñetti at ñeenteel bi ñetteel bi at sax laay wax Amadou Sassine la sanc Daaru te Amadou Sassine la gor la gor ñetti at lañu dëkk Daaru Salaam képp képp képp képp te Daaru la maam si Ibrahima Fall sosé daaree mbooloo mi bëriwut boo gisee ci gàttal ba mu tig nii ba nga xamante ni Sëñ Tuubaa amul ñoo ko tegle amul nag amul doo nga am sëñ bi ab yoon sax dafay jaar am loo xam ne jamono boobu amu mu am ko amul ko tegle néeg ba mu yónnee Mbàkke Bawol ay ay bokkam bàyyi koog dofam bii di seeral faal kiñ ne daf la kon boobu ana mbooloo ma mbooloo amu fa ñu ngeen diglu bu baax nag maam Cheikh Fall ba muy jébbalu ci sëñ Touba lam fa fekk ëpp na ñiin fukk waaye du ñu du ñu ay murit ay jàng jàngkat lañu woon yu doon sàkkum njàng daara si moom ànd say ja dafa tas te at ma ma tase ba at may jeex ci ama sësin maam ci Fall jébbalu ca feeba ba mu jébbaloo ama a sësin moom borom Touba ñu tàmbali liggéey ba bam ba daari si Momar Anta Sall jee tas lam fa bàyyi daaree alquran daaree xam-xam ñii jàng loxatu arabiya ñii di jàng séera ñii di jàng lone sëñ Momar Anta Sall bàyyi fa mbooloo mu bari bi ma ci réfal indi ci gàttal indi fa lam fa indi ca la wax ni gan gii li ma fi indi waale ku mën a toog ànd ceeg nun toogal ku mënta toog ànd ceeg nun dama seeti foo jànge ñëw wëlbatiku ànd ak maam Cheikh Ibrahima Fall ci te te la fa indi ñooñee ñooy ñiin bu manqué ba benn jëmm yële fa fekk waaye li fi Cheikh Fall indi mooy ni mooy numéro un ñaa ngi dégg loolu kon daari tër bi amul daaru salaam la ko sence bi mu bi mu jot Touba mbooloo mu tër maam ci Ibrahima Fall ànd ak ànd ak lu néew ci ñu nangoo sos daari tër bi gor Touba am ca dog-dog moom lu ko mujj liggéeyal dog-dog jooji kilifa googee dafa jaawale maam ci Ibrahima Fall moo ko gor waaye ba mu ko goree ba Sëñ Touba di sanc si di sanc si dëkk bi nag ànduñu nag daa fekk ba mu tëdd dog-dog ci Darou Salaam mu tëdd dog-dog déedéet waaye moo Darou Salaam nag boobu yiwi ko gut dog dog mooy daa xawoon tooy tooy tooy tooy mooy mooy fatigue cérébrale mm-hmm. mooy mooy dog fatigue cérébrale sa yaram yëpp dog ndax ndax daa sànjaaku Tuuba gorit ko ci gorin woo xamante ni li mu doon doon jàmbaar am na ci yaram ba lu ko ci dikk mooy dog dog rek mooy tooy ju métti mm-hmm. waaye ko baaxee ko daal saafara ca saasa nag ñu ko bàyyi fal yëpp dégg sun sun sunu garab a ngi nii sëñ Bas ku baax daa daal di réeru ab gàtt daa di xasum win ñu xas ci win yi ñu ñu togg xasum win ma ba mu ñuul kóob ñun ñu jël ñu suure ko ñulu ko ndawal googee ba ba ndawal ga ñor mu jox ko ne ni ko naan ci ba si biir fees nga jëfandikoo ci ndawal gi ba mu xëyee la jóg <laughs> noonu la fajee loolu la seen tuwaa faje Cheikh Ibra ci pajum saayir mi ndawalu ndawalu gàtt ak xasum win loolu waaye nag kon nag ah waaw suñ bés dana ko def ah, ko def moom léegi nag <laughs> léegi nag loolu mujj liggéeyam Touba nag mu ci ci mu gorog Touba mu yiwi ko mu yiwi ko mu dem ndar kon ku baax ki moo góor Daaru Salaam moo góor Touba doog dem Ndar lu fi nekk Cheikh Ibrahima ba mu demee Ndar da ko soppi ba ci ban liggéey la ko soppi ba mu ko gërëmee ba mu yebal ko Ndar ba mu ko gërëmee ah, déggoo déggoo leen ba muy ba muy doog a dem Ndar da doon màjjaal ci biir sindooni ak li ko ak sindooni ak loolu ak gét Ndar mel ni at la ko fa def atum ñaari ma la suñ ci tasi la la ñibbi Touba 1888 la dafa dem 89 90 91 92 93 mu delluwaat ndar. gannaaw bu Cheikh Moussa Gane jamono. gannaaw bu Cheikh Moussa Fall Gane jamono. ba ma demee ba ma sëncee Kashmir gañoo ca la tàmbali ca la tàmbali di def maraîchage. di béy mbéyum nawet di béy mbéyum noor. booba ndar booba àllu gànjool ba. may na fa béy dugub ju weex may na fa béy mboq waaye Centre Fall nag daal lëkkaloo ak français yi ak hollandais yi booba anglais yi ñëwoon nañu fi ñu jox li ñu jox ko ay moniteur yoo xam te ni CAP la ñu am ñuy defal dongay formation professionnelle ñuy béy pomme de terre di béy soble di béy tamaate di béy euh, suppame dégg nga di béy di bay suraab di bay chou-fleur di bay yooyu ñu ñu jox koo tam ay variété yoo xam te ni fur wi la ñu ñuy bay mango di bay orange di bay pomme cannelle di di bay pomme de akasu muy darkase di yooyu yëpp ñu ñu ñu di ko def maanaam saamam ci ibrahim Fall dongo yi loolu loolu la tàmbalee dafa ab liggéeyam ca ndara dinaa dégg itam ngeen wax point de ay barab bi maam seen faal doon jaaye yu ñu koy jaayale doonul ay bitik yoo xam ne dañuy jëndi marchandisum kenn fenn di ko jaay si yooyu yi maam seen faal doon béy muy lijum bi ak furu bi suñu ko béyee ba mu bari lool liggéey di war a dem ci suñ bu mag bi dem ci suñ mag bi luñ ciy dong tubaab yi jënd jënd ko ndax booba fonctionnaire ci moom la jënd pomme de terre bi daan jóge Hollande bu maam Cheikh Fall bii ko gën léegi nag la des ca la des nag ca la ñor moom lañ def nag ay point de vente ñu jël suñ maamu ndaw wutal ko wutal ko biti ci Daaru Xuddus lépp lu ñoree ci suuf ñu jox ko ku bëgg a jaay jël sëñ ba Ndiim defal ko ko ci Daaru nam jël mu suñ mu euh, sekk defal ko ko ca xaayra su ko leen loolu la point mooy point de nga xamante ni moom la njobatu maam si Ibrahima gi doon jaay. ñun ñi loolu leer na ah, loolu leen nañ waaw waaye jikkaaniñ ko fenn nag. ñu ñu ubbi wuti ji marchandise di ko fa def. di ay point de collecte. point de collecte a jaay li la fa ñaan. jërëjëf jërëjëf Baye Moussa Seck Baye Fall tubaarkàlla euh, li li li wër te wër daal ni ñu ko Baye Moussa Seck waxee Baye sëñ Mamour mooy gorog Touba. Mhm. ci la ngërëm lii sosoo. ca Daaru Salaam. Mhm. loolu moom leer na. kon nag mbokk yi bis boobu mooy woy ba léegi. Mhm. fukki fan ak juróom-ñaar si weeru gàmm gu jot. fii nga xamante ni mooy euh, kër maam Cheikh Ibrahima Fall. si euh, njiitalu Serigne Ngunda Fall moom Serigne Bassirou Fall alquran ak mboolem njaboot gi. mboolem Baye faal yi kon di fàttali ko bis boobee nga xamante ni taarix dëgg la di ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall fukki fan ak juróom-ñaar si weeru gàmm ñu dëgmal ko incha allah fii ci Touba Baye Fall gi sëñ Maodo. tubarkalla eh, jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim jërëjëf Baye Moustapha Seck eh, ci waxtaan wu am solo bi fi ñu ko tënkale rek mooy dafa doon loo xam ne eh, ñun ñëpp war nañ caa gisee ne kon ndekete li ñu Cheikh Ibrahima indil. bu buñ ca toppee duñ ci gàññi dara. dafay mel ne kon fii réew mi toll yitte woon nañ lool maam Cheikh Ibrahima Fall. Ah. ndax fexe woon na ba li muy dundee lépp. Ah. ak mboolem li muy dundalee ak njabootam mu di ko bayee ci suufam. Ah. waaw kon nag loolu defe fi jamono toll daal loolu lañ te fi ne ni nag gis naa ne réew mi loolu lañ soxla finde ne. kon faaw toppaat ci njàngale maam Cheikh Ibrahima mooy tax ñu am loolu. mos ta jéggaani dara dégg mos na maa dégg sax ñu wax ne diwu importe sax mosu ko mosu koo wuti. maam Banna na da ko daa segalal. ci njëriñ lu lu xeet ak lu lam daan segal ci diw kon seex Cheikh Ibra naka jekk foofu la nekkoon tënk woon nag ci liggéeyal sëriñ bi saa su nekk tënk ci ak njabootam ba ngërëm loolu nga xam ne moom la ñuy fàttaliku di fukki fan juróom-ñaar ci weeru gàmmu sëriñ bi gërëmoon ko ko Daaru Salaam Baye Moussa leeral nañ ñu ne maam Cheikh ku bëri ngërëm la waaye ngërëm li ñuy fàttaliku mooy gannaaw bi nga xam ni gërëm na ko yabal ko ndar mhm. soppil ko aw mu nekk ca bis boobee nag xam ngeen ne ni ko mag ñi feeñale eh, te Cheikh Bassirou Fall alxuraan def ci yitte ak pas-pas bu kawe ba tey bis bi egsi fii Eh, nga xam ne teewaawoon ci cosaan la Baye Moustapha wax na ko waaye dellu indi gi nga xam ne indi nañ ko fii ci dëkk bi sëñ Bas moo waxoon ne Cheikh Ibrahima ko wax ne ko na nga ko indi Touba booba Cheikh Mouhamadou Lamine fi nekk mu demoon waxtaan ceeg moom sëriñ bi jox ko ci ndigal na ko lépp lu ñu defal la Cheikh lu nekk rek Touba la gëne at moomee sëñ Alaaji Baara ñëwal na boppam ci bis bi mooy sëñ Touba boobu ko waaye la mu ko waxoon rek na ko nag la ma la waxoon rek a ci ne mooy fu ñu ko mën di defee ci àddina lu ñu ci am ci tuyaa bu ñu ko defee Touba mu yokk faal ba noppi dara du asaar fii la mujj liggéeyal sëñ tubaa ngir sanc tuubaa mu gërëm ko ca daaru salaam ñu indiwaat bis bi tuubaa mi mi nga xam te moo kulutiire liggéeyum ngërëm bi neel neel benn alaaji baare mii Cheikh Modou Lamine Baara mu borom tuubaa mu ñu ko tuddee keroog ba mu feeñee jamono ca la suñ Tuubaa ne gi indiwaale na seen yéenti ngërëm kon dara du asaar Cheikh Mamadou Lamine moom mi indi woon ngërëm la moo joxaat saam sëñ Basiru Faal alxuraan ni ko ni ko ngërëm loo lii indi ko di ko defe fa ko gërëme woon te mooy Tuubaa incha allah <laughs> <laughs> jërëjëf Baye Moussa sëñ Maodo jërëjëf xam naa di sant rek <laughs> bu ko defee ñu jox kàddu gi Serigne Bassirou Fall mhm. Cokke mi nga xamante ni moom mhm. mooy euh, jiite lépp lu jëm si wàllu organisation bés bi di mhm. président comité bi bu ko defee mu mën ñëw tëjal jotaay bi incha allah tabarkalla euh, jërëjëf euh, sëñ Aline Badara jërëjëf Baye Moustapha Seck xanaa di santaat bu baax rek di wax ne kon bis baa ngi noonu incha allah buñ gàmmoo bañ na suba la bis bi dellu mm. loolu fën comme samedi lay tombeel waaw incha allah bu ci yàlla àndee. mën ko mën na ko gaaw lay tombeel waaw kon nag ñu waajal ko bu baax a baax am na conférence bu am solo nag. gaaw di ren muy tombeek euh, kon gaaw. di mhm. ñaar fukki fan ak benn si weeru septembre. waaw nag bis bi nga xam ne julli woon. ci géej waaw ma ngoog moom la gi mooy tombeek bis bi nga xam ne ci la maam Cheikh Ibrahima Fall amoon ngërëm ren kon ñu ngi koy waajal baax a baax fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu mm. di ko waajal bu baax a baax nag bis bi nag ni ñu koy waxee saa su nekk rek moom njàngum alquran moo ci jiitu defe naa lépp luy daara ci Touba ak li ko wër ba njaareem Bas bu ko mosaan a jub si rek dig bis bu ko dégmalee rek ne daal di santaane daara ñu tàmbali limu kaamil yi mm. même ci bis biir kër gii fa la ñuy taxaw limu kaamil bi defe naa sëñ Basiru Jóob mi koy jiite ma nga nee toog moo jiite njàngum alxuraan mi mboolem ci daara yi ak mboolem bi nga xam ne dañ koy tàmbali ci biir kër gi sëti maam Cheikh Ibra Fall yi di daayira Jazbul Murid ku a xam ne fii ci daara ji ndax nag anniversaire u daara ji mooy bisu ngërëm li xamoon nga loolu <laughs> mooy 2014 waaw ci lañ tàmbali woon sa sos daara maam Cheikh Ibra ji ci bisu ngërëm li sëñ mun Muntaxa moo ñëw teg xeer bopp ñëw ci bis bi waaw moo tax daaray maam Cheikh Rafal jii nag di jës bu murit ñoom itam fas yéene nañ jàng fa ay limi kaamil lépp bis bi kon nga koy taxawu bis bi sëñ Aline Badara mboolem ku Cheikh Ibrahima Fall am da nga dundal bis bi bis bi ñëpp a koy màggal la ko tàmbali kër Cheikh Moudou Moussa Fall ba kër ci Ngunda Saa bi nga xam nga ne sëñ Cheikh Ngunda dalam baa nga ca kanam ñëpp a koy dundal mboolem ñi Cheikh Ibrahima Massa am ñëpp ba ci njabootu sëñ Mor Jooja Fall fii ngay ñëw fekk leen ci gannaaw kër gi ñu tànn sëñ Baara Fall ak njaboot bi kon mboolem lu Cheikh Ibra Massa am ñëpp ay taxawu bis bi di ko dundal kon nag bis baa noonu a baax a baax a ko te dolli ci nga sofu ci bis bi nga xam ne mooy bisu ngërëmul maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi jërëjëf sëriñ Mamadou Ndaw Baye Fall xam-xam feeñaat na bu wër a wër eh, ko waxee sëriñ Basirou Fall Cokke mu Serigne Cheikh Fall Cokke xam ngeen ni moom euh, la Serigne bi teg lépp ci loxoom na ko waajuram mu tedd wa euh, sëñ Bassirou Fall alxuraan defee woon euh, mu koy taxawu taxawaay bu am solo boobaak léegi xam ngeen ni kon moo ñuy tëjal rek lu jëm si wàllu waxtaan wi mbokk yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ren fukki fan ak juróom-ñaar si weeru gàmm ci atub junni ak ñeent téeméer rek ñeent fukk ak juróom benn ci gàddaay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di 1446 xam ngeen ni euh, mooy euh, bis bi euh, tombeek septembre doon nag kon samedi gannaaw bi ñu gàmmoo ba noppi fii ci Touba baay Fall gi ak fépp fu taalibe nekk rek ngir fàttaliku bis boobee nga xam ne mooy bisu ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall kon sëñ bi tëjal ñu jotaay bi si wàccaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare ci jotaay bii nga xam ni. ñu ngi koy ci kër maam Euh, sëñ Amady Mouroum benn jëwriñ Cheikh Rafal mi mi ngi ci biir. ñuy defee fii di liggéey boo xam ne Cheikh Rafal lañ koy liggéeyal. ginnaaw lool nag euh, sëriñ bi mu ngi ci nuyu ñëpp. Euh, di ñaanal sëñ taxa Mbacké mu yàgg fi te wér. noonu la ñuy ñaanale sëñ Amady Mouroum Mbenda mi nga xam ne moom la ñuy def lii ci pàkkam bii. ndax bis bi bisu maam Cheikh Ibrahima Fall la sëñ Bassirou Fall Farana la yàlla dogal ñu koy taxawloo ci jamono yi sëñ mu Mbenda Fall lañ ko joxe woon ndigal li kon képp ku fi nekkal Cheikh Ibra Fall rek bis bi yow lépp ci yow la ne moo tax jataay bi ñu njëkk amal ñoomel ko fii ci pàkkum maam Cheikh Ibra Fall ci kër maam Cheikh Ibra nga xam ne Cheikh Ibra Fall mi ngi fii ci suñu ah, loolu nag ñu ngi wax ci kàddu yoo xam ne ñu ngi koy wax ci ndigalul Serigne Cheikh Fall Cokki mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Mbàkke Fall fi mu ne di kilifug sëñ Ngunda mi nga xam ne mooy taxawee bis bi ah, mu waxoon nag ñu nekk ci wàccaay yi ah, fas yéene taxawu bis bi sëriñ bi nag mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn bis moom nam daan demee lay demee bis bi mooy bis bi sëñ Touba gërëme maam Seera Fall te te te bis bi euh, daa doon bis boo xam ne bisu murid yëpp la ndax kat maam Cheikh Ibrahima Fall euh, euh, yàlla suñu borom mi ko sàkk moo ko ni Bamba moo moom ras ko jox ko say pexe ba mu demee ba gis Serigne Touba kenn waxu ko nam koy toppee yàlla suñu borom moo ko tegtal Serigne bi moo ko wax nam koy toppee kon bis bi bisub ñëpp la mboolem koo xam ne ab taalibe nga rek bis bi sa bisa kon nag Serigne bi daal bàyyiwul kenn mi ngi woo ñëpp. képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah bis bi sa bisa bis bi nag moom lépp lislaam la akuk bi ndax euh, ni ko sëñ Mamoun waxee léegi rek euh, daare alxuraan yi tàmbali nañ di jàng alxuraan kenn ku ne li nga koy jàng yaa ngi bind lim bi su bis baat euh, bu ñu xëyee neuf heures la jànkat alxuraan di ñëw ba di sept heures lu waay man ci lu baax da nga koy def kon bés bi bésub alxuraan rek la génn génnul dara lépp daal lu ñuy liggéeyal sëriñ bi rek di ko def addiyee maam Cheikh Ibrahima Fall suñu nag li programme bi Euh, mooy euh, sëriñ bi bu nee ba 11h dana génn ñii seer di seer taalibe yi ñëpp yi ñëw euh, ñii jàngal xuraan di jàngal xuraan lépp loo xamante ni luy mandargaal bisub lislaam rek te la ñu ne buñ demee ba waxtu 14h ñu berne def bernde buñ defee bernde ba nepp continué waat programme bi buñ demee ba 17h ñu ngi waajal cérémonie religieuse mooy cérémonie officielle maanaam lépp lu ëmb daal ci wàllu administration ak kilifa diine yi. ñoo ko war a taxawee fas yéene nañ caa nekk nag ba vingt suñ ca nekkee ba vingt heures nag euh, ñu woo waxtaankat yi sëñ Moustapha Seck sëñ Baara Mbóoj ñu ngi bëgg sëñ Boussora Samb ak ñeneen borom xam-xam yëpp buñ demee nag ba une heure euh, ñu woote tudd yàlla sëñ Cheikh Ndoye ak sëñ Makhtar ak mboolem kuy tudd yàlla rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar ñu ñëw taxawee bis bi buñ ca nekkee nag ba samaan set buñ xëyee sëriñ bi ñaan ñu ñaan yàlla suñ borom lépp luñ ci def mbaa luñ ci sonn suñ borom nangul nangul na ko bés bi daal mu gàtt mu bari bisub bisub Cheikh Ibra Fall la bisub sëñ sëñ Basit loolu la ci bëggoon ndax euh, mandarga yi mooy Tiwaawan nañ ko daan defee Tiwaawan ñëpp ay gan daan doon waaye nag pàcc bii nga xam ni day ñeenti junni pàcc ak nangam Cheikh Abdou Lahad jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne mboolem njabootu Cheikh Fall ak mboolem Cheikh Banoon ak Serigne Touba am nga fi pàcc nit ñuy dundale màggalu Touba la ñuy dunde bis bii te te bisu maam Cheikh Fall bii daa am baytin bu ci ne euh, maam Cheikh Fall léppam da cee jiital Serigne Touba te euh, saa bu màggalee màggal màggal gi jàll yaakaar naa bisub ajjuma la maal suñu tuwaay bisu ajjuma la bis bu ñëwee samedi lay gaaw lay doon te nag bis bu mën di doon rek bis bu mën doon saa bu bisub Cheikh Rafal bi ñëwee da nga naa euh, talaata la woon da màggalu Cheikh Rafal euh, euh, altine damaa ju maam bu ne altine la màggalu Serigne Touba ak noo ko mën a wëlbatee nag waaw kon nga xam dara du asar ma maanaam ni ñu jëbbale Serigne Touba boppam nga xam ne léppam sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daa jiitu benn lu mu mënti doon saa bu ñu defee bu ñu defalee sëñ Tuubaa lii bis bu sëñ Tuubaa moom ba ca topp la Cheikh Rafal doon te saa su ne nag te te nga tàmbali bu fekkee eh, archive mi ngi fi li may wax ne archive ngi fi mën ngeen a xool mm. ba ba ko sëñ bi sa nga xam ne ci la sëñ Tuubaa amoon ngërëm ci la Cheikh Rafal amoon ngërëm te Daaru Salaam fu bis ba ca topp mooy doon bisu Seer Faal bi kon nga xam ni dara du asaar euh, li li li li mu ñaanoon Serigne Touba na ko parce ah. que yéen a doon ab jaamam di ko di ko liggéeyal euh, mun léppam mu jox ko Serigne Touba topp ci ginnaawam loolee nag fi waaye bépp bépp bis bis bi nga xam ne mooy lépp mooy bisu murid lépp fu mu màggale bu ne bis ba ca topp mooy doon màggalu maam Cheikh Fall kon nga xam ne loolu lu ma da bàyyi xel la ah, waaw loolu daal mooy mbir mi kon ñu ngi ñaan suñ borom ñu àgg ak jàmm dafet ko jàmm te fa def rek suñu borom nangu ko moom eh, jërëjëf suñ Touba la ko maam Cheikh Fall jërëjëf jërëjëfati Fall incha allah ni ñu ko waxee xam ngeen ni eh, bis ba dina ko le 21 septembre ñaar fukki fan ak benn si septembre fii ci eh, dëkku sel bi di Touba mm-hmm. Baye Moustapha Seck fii dina fi teewaat si conférence yi Baye Bara Mbodj ni ko sëñ Bassirou Fall waxee Eh, ni ki it eh, sëñ Bouchra Samb ak yeneen boroomi xam-xam sëñ Moustapha Fall Fatikan moom mooy sëñ Modou Aminta ak mboolem boroomi xam-xam yi rek Cheikh Ibrahima Fall Lamp eh, ñoom ñëpp dañu fi ñëw ci conférence yi incha allah fas yéene kon dundal bis bi cérémonie officielle bi it di si woo rek mbooleem autorités administratives yi autorités officielles yëpp rek ñu ngi leen ci woo euh, yi nekk ci région bu Diourbel ak euh, yëpp rek dootu euh, saisir nañ leen de façon officielle di leen gën a woowaat rek ak mboolem kilifay diine yi nekk si Touba ak li ko wër di leen woo si bis bu màgg bi nga xamante ne mooy ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko gàmm jaajëfal bu baax a baax Serigne Mamour Ndaw Baye Fall ci taxawaay bi ba Bassirou Diop ñu ngi koy ziar bu baax bi ñu ko waxee xam naa ñàkkul nii dinañ ñëw léegi rek si kanam euh, ci euh, euh, kon déclaration avant première bi waaye di jaajëfal baax Serigne Khadim Bamba Niang borom baax di sunu di sunu di sunu di sunu gone rek waaye nag moom léegi moom mooy moom sunu kilifa la xanaa nu <laughs> ngi koy ziyaar bu baax a baax sëñ fàllu Sil mi ñu doon jàppale ci liggéey bi ak sëñ na di ko jaajëfal bu baax a baax si taxawaay bi jox leen euh, daje incha allah kon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu di euh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre màggalug maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci Touba Jannatul Mahwa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu amin Fall